Mhm. waaw bon euh, je répète euh, mën nga confirmer ce propos ban ban ban saakaat la ñu la kan la. Mhm. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. ok foofu dama ci leer dama noonu duma ci wax foofu dafa sensible dama noonu du ci wax parce que lu ne si loxo yoon du ci wax mais ce qui me concerne ak li ma jot a xam ci label bi man man yoruma numéro liw ñu fi toog def naa yoruma numéro liw liw mu ñuy dégg Matar yorul numéro liw liw musul xam kër Matar à part bi ko ñoom xaas jëlee indi ñëw foofu indi fa ñoom idaal ak ñoom ñoom ñoom délégué pour ñu jéggal ñun liw c'est très normal que ñu gis ñoom moom actuellement pour l'instant parce que dafa am ñu def benn jëf du si ñëw mu salir benn image donc moom mi ko wax bu doon yow mii sax yow yaay liw nga toog nga wax loolu salir benn image da lay wër yow la kaay ñu ko demee noonu yow xamoo suñu kër yow sa numéro lan moo tax nga def lii mu ne nii ak nii la demee ñu ne ko ah mais yow kon la yóbbu si yoon wala kat ne la jaarale fi la war a jaarale te dañ koy comprendre aussi si benn côté parce que ñu def loolu tey liw ñëw fii si dëkk bi dañ koy jàpp non seulement ndax leer na ñu koy jàpp ndax sénégalais la du guinéen du malien boo xamante ne amu fi mbokk ñu ko nar ko patam patamee nar am nu mu demee moom mu wane benn cofeel bu mu am ci suñu artiste bi di Sidi Diop donc jàppale wuñ ko pour di ko ruux naan ko defal li wala defal lee bañ na ko ba ba mu ñëwee keroog ba daal di jéggalu ba mu ne baalewul dañ ko forcé ni ko baaleel ñun suba teel nañ baaleel maa kii ko xëj si biir fifi du ma baal ma fen baaleel mu baal kon tey ñun liw amuñu benn lien boo xam te ni wala ñu koy sant wala am numéro sax ba koy woo wala di ko message naan ko saagaal diw ndax bëgguñu kuy saaga diw ñun bëgguñu ku ñu saaga kon nan lañuy bëggee kuy saaga keneen te musique bis warul toll foofu ci ay saagante dafay war a jeex ñun duñu ay noon dañoo war a liggéey avancé li moo tàddal musique bi aussi à part TikTok lii si la bokk ah instant waroon nañ fekk Sidi Diop def featuring ak Wally Wally def featuring ak El Hadj Keita El Hadj Keita def featuring Tarba Tarba def ak Sidi Diop ñuy def nii jaay musique bi mu dem mais quel est problème lii moo tàddal suñu musique encore une fois saagaloowuñ kenn làkkuñu aussi kenn kuy saaga que mu leer si ñëpp voilà Yes. mm mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. defe naa ne sànq sama perspective wax naa tey ku mel ni tey suba teel boo xoolee ci artistes yi nga xam te ne fi génne ay afrobeat maanaam musique bu mën a jaay amul benn label bu fi ëppale suba teel c'est à vérifier Sidi ñaata afrobeat la def. donc ñun li ñu ñor encore une fois mooy liggéey amuñu leneen lu dul liggéey. saagawuñu yabaluñ kuy saaga gaaruwaale wuñu lu ñuy def si musique lañ koy def suñuy information suñu lépp ci musique lañ koy jaarale te concurrence bi ñuy def bu seen la parce que musique la ñuy def je répète donc en voulant trop gagner parfois sax on risque de tout perdre ñun yàqamti wuñu dañ naan laytal by laytal the bird met his job loolu la ñuy loolu la ñuy dund fait maanaam ñun dañuy liggéey molo molo di ko teg ci yoon te wax ji du bari jëf ji mooy bëri.